أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi dellu siwaat ci sunu darsu siira tey ñuy jël ziwaaju zaynab bintu jaxs yonent bi alayhi salaatu wasalaam dencoon na soxna suñuy wax Zeynab bintu Jaxs waaye denc googu yonente alayhi salaatu wasalaam denc ndaw si dafa am lu tax am ay xew-xew yu ci xew am ay mbir yu ci am dafa laaj jullit jàng ko dafa laaj dugli jullit déglu ko dafa laaj jullit xam xikma bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala def ba sant yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko fokk mu denc soxna sii di Zeynab bintu Jahsh ñaareelu tomb bi ñuy jëlee ci dars bi mooy jullit mën a am dalil ci way dese way manqué way réer waaye doya di nga xam ne ay nooni lislaam lañ ñoo ngi wax ci mbiru Zeynab digganteem ak yonente alayhi salaatu wassalaam kon jullit war na am ay dalil war na am ay cëslaay ay wéeruwaay ay ndëgërlaay yu muy wéeru pour mën a tontu noonu yooyu nga xam ne dañuy pattaxlu ci denc gi yonente bi alayhi salaatu wassalaam dencoon soxna si di Zeynab pour yàq lislaam mbokk yi xam ngeen ne ci at moomu ñu naan mooy atum xazwatu bani quraysata ci at moomu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ko yàlla sant ne ko mu denc soxna si di Zeynab Zeynab mi nga xam ne yaayam tàntaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam la bàjjanam la mu ngi tudd am ya bàjjanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la moom Zeynab yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko labati woon moo ko ñaanali woon ab doomam joo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daka doomoo bi yonent bi doomoo waa jooju tudd Zeyd ibnul Xaarisata yonent bi doomoo ko te xam ngeen loolu xew-xew la woon histoire la Zeyd Xadija ko yoroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dencee Khadija Khadija daal di yëkkati Zayd daal di koy may yonent bi yonent bi yar ko tàggat ko ba Zayd bëgg yonent bi mbëggeel goo xam ne foo ko natt wees na ko benn bis bàyyi Zayd dégg mbaaxaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne xaar leen ma dem ci yonent bi amaana bu ma ko ñaanee mu delloo ma sama doom ji di Zeyd mu delloo ma ko comme léegi nekkatul ci loxo Xadija ci loxo yonent bi la nekk bàyyi Zeyd ibnul Xaarisata ba mu egsee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne ko man de loolu awma lu ma ci wax Zeyd a ngi nii yaa ngi nii maa ngi nii Zeyd bu fekkee dafa tànn ànd ak man nga la ba ko mu toog bu fekkee dafa tànn ànd ak yow man dinaa ko ba mu ànd ak yow dem ñu ne Zeyd bismillah Zeyd ne tànn naa des ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di du mooy bàyyam woon ko ginnaaw loolu mu def lu rëy la loolu waa ji def lu màgg la du mooy say mbokk won sa baay ginnaaw waaye nag dafa am lu mu gis ci yonent bi olof yi daneen faral di léeb di wax ne la mu saf ka ko macca ko xam ki nekk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam dundandoog moom koo ko xam yonent bi moo tax bi baayam ñëwee tànn loo ko mu tànn des ci yonent bi ah yonent bi tamit nag ne comme kii daal bàyyi na ñëpp jàpp ci man man tamit nag dinaa ko defal lu kenn deful mooy kii bis ni ki tey sama doom la ni doom di mel ci bàyyi ni bàyyi di mel ci doom tey maa ngi leen di seedeel ne kii noonu laa mel ci moom ñu commencé di ko woowee Zeyd ibnu Muhammad yonent bi yar ko ba mu màgg takk jabar jot mu wax yonent bi dafa bëgg soxna yonent bi dem ci kër bàjjanam boobu labatal ko soxna soosu di Zeynab ah am na nag ay xew-xew yu ci xew mooy xam ngeen ne Zeyd jaam la woon te soxna si sang la ngi bokk ci sangi Xurays ndaw si ak ay mbokkam li leen dugal ci sëy bi mooy grâce à yonent bi la moo ma labat si donte ne kiñ ñuy may du sunu nawle du sunu nattango waaye comme yonent bi ñëw na dugg sunu kër di labat sunu doom duñ ko delloo ay loxoy kese moom moom danañ ko may soxna waaye nag wax dëgg yàlla yow yonent bi bu doon du yow du nu may kii ndax du sunu nang du sunu nawle sëy ba daan nay am Zeyni ibnu Xaarisa ñu may ko Zeynab bintu Jaas bis bu nekk muy dégg ci soxna si lu ko naqari amu ci lu ko neex ndax boo nekkee sa soxna léeg-léeg mu ne la xam nga yow mérité wuma xam nga yow bu doon du yonent bi xam nga yow bu ma fanaanee sa ginnaaw war ngaa sant de xam nga yow xam nga wax yu mel noonu su ko jigéen di faralee di dugal ci nopp jëkkëram bu yàggee jëkkër ji day am zen jëkkër ji day am xat-xat jëkkër ji sëy boobu dootul neex ndeke borom bi subhaanahu wa taala moo namm am lu mu dindi mooy lan mooy doomoo nit ak baayoo nit comme dafa amoon ci aaday arab doomoo nit ak baayoo nit baayoo nit bañ jox la santam doomoo nit bañ jox la santam boo dee mu donn la bu dee nga donn ko ah borom bi subhaanahu wa taala nag nam ma dindi loolu te tey fan la koy jaarale mooy ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mi baayoo zeyd dem labatal ko woon soxna su tudd Zeynab bintu Jaas alxuraan daan nay wàcc ci suratul ahzab aya 36 borom bi subhaanahu wa taala naan wa ma kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyarata min amrihim an yakunu lahum alxiyaratu min amrihim wa man yaasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina borom baa ngi wax ci saar boobu ne warul jullit bu góor ak jullit bu jigéen buur bu toll ne yàlla daal di àtte wala mu dogal daal ne mbir mi nañ ko defee nii jullit yooyu àtte bi del seen kaw naan waaye ab jullit buñ ko nee yàlla nee na yonent nee na lu mu war a wax mooy dégg naa te nangu naa waaye ab jullit ñu ne ko yàlla nee yonent bi ne mu naan waaye nag kooku na xoolaat boppam ndeysaan dafa am benn xew-xew bu xew fan yi ci réew mu tudd France am soxna soo xam ne dañ ko takk mu ànd ak jëkkëram jóge benn dëkk ci dëkku arab yi dem France di def lune de miel am bi mu yegsee benn fan ñaar ñett mu dégg nodd te loolu daa mel ni ay jullit la ñu ne ko waaw dañuy julli mu ne ah waaye yow sama borom kër bàyyi ma ma dem foofu julli ji waaye mu ne ko demal soxna si génn gàddu saakam dox ba yegg ci barab ba dugg ubbi saakam génne kolam yëlëb daal di teg ci boppam daal di julli sëlmal génn bëgg a dem am benn soxna tubaab bu tuub ñëw daal di koy nuyu mu fay ko mu ne ko ndax jullit nga mu ne ko ah noo may gisee ci jàkk ma julli ba pare sëlmal nga maa laaj ndax jullit la mu ne ko kon yow wax nga laa ilaha illa allah mu ne wax naa ko koy mu ne ko kon de dëgguwut ndax bu dëggu woon kol gi nga teg sa bopp doo ko teggi di ko dugalaat ci saag bi su fekkoon ne laa ilaha illallah bi gëm nga ko bu doon ne laa ilaha illallah bi nga ko waxee sax na ci sa xol kon sa kol gi du teggeeku ci sa bopp bi maa ngi lay ñaan baamtuwaatat sa laa ilaha illallah bi ndax dëgguwut wérut ndeysaan mbokk yi ab jullit su déggee yàlla nee na yonent nee na li ci war a tegu rek mooy dëggu naa nangu naa ndogal bi daal di wàcc Zeyd daal di fase Zeynab yàlla wàcce ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko nag comme Zeyd fase na soxna si nag yow yonent bi nag yaay takk soxna si ah mbokk yi xool leen loolu mbir mi diis ci yonent bi te yàlla nee na ko maa kaana li muminin wala mumina warul jullit bu góor bu gëm yàlla ak jullit bu jigéen bu gëm yàlla yàlla ne nii la ñu naan waaye yonent bi nga noo woo Zeyd di ko yedd naan ko ragalal yàlla téyel sa soxna bul fase sa soxna téye ko denc ko waaw fekk boobu yàlla namm na mbiram foog Zeyd fase ndaw si yonent bi takk ko ndax yàlla dafa am lu mu bëgg a yàq benn aada ci aaday arab yi mooy lan doomoo nit ba jël mu jël sa sant boo dee mu lay doon moo tax ngeen jàng ci alxuraan yàlla di nettali histoire Zeynab bintu Jaas ak Zeyd di ngeen gis sax ci surat ahzab benn saxaaba dong alxuraan moom la tudd turam muy Zeyd bu na laajee saxaaba bi nga xam ne turam mu ngi ci alxuraan waxal mooy Zeyd ibnul Xaarisata yonent baa nga woo sox Zeyd naan ko ragal yàlla ci sa soxna am sik aleyka zawjaka parce que yonent bi bañ na yahudi naan xool leen rek nangu na jabari doomam wala arab yi naan xool leen rek Muhammad lim def doom joo xam ne doomam la moo ko bàyyoo woon tey doom ji fase jabar moom yonente mu takk moo tax mu naan Zeyd amsik alayka zawjaka téel sa soxna wattaqillaha ragalal yàlla moom yonente ba yàllaa ngay feeñal la mu nëbb ci xolam mooy lan na Zeyd jàpp soxna si na ko denc bu mu ko fase ndax xam na ne bu fasee soxna si rek yàlla takkuloo ko soxna si borom bi subhaanahu wa taala di nu nettali loolu ci quran ci suratu ahzab aya 37 ne fa lamma qada zaydun minha wataran gis ngeen aaya baa ngoog foofu la yàlla tuddee turu sahaaba boobu ci alquran sahaaba yi 124 mille lañ woon benn sahaaba dong la yàlla tudd turam ci alquran muy zayd falamma qada zaydun minha wataran zawwajnaakaha likay laa yakuna ala almuminina xaraj xarajun fi azwaaji adiyaihim ida qadaw min hunna watra wa kaana amrullahi mafula borom bi nee na ba Zayd pare sa soxna si sëy ko sëy naag moom ba fase ko yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam takkal naa la ndaw si ndax jullit yi aña amati bañati amati bakkaar ci doomoo ya ñuy doomoo seeni doom yuñ leen may wala doom ya ñu yar wala doom yoo xam ne dañoo koo fekk seeni soxna am ko ba pare loolu ñu naan doomu jiitle mu ne loolu de mbir la moo xam ne yàllaa ko dogal wa kaana amrullahi mafula te ndogal yàlla moom luy am la lu yàlla dogal loolu rek kay am kon mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dencloo na ko soxna si foofu la yàlla wàcce waat ci même aaya bi aaya 40 yonent bi di araamal doomoo nit doomoo ab doom yàlla ne ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allahi wa xaatama annabiyin kaana allahu bi kulli cheyin alima yàlla ne ma kaana yellul warul jaaduwut nekkut muhammad aba ahadin min rijalikum bàyyi kenn ci seeni góor muhammad day du bàyyi kenn bu ko kenn bàyyooti juru leen li wóor daal mooy muhammad rasulullah yonent yàlla la wa xaatama nabiyina moom mottali yonent bi yonent yépp yonent bee leen mottali wa kaana allahu bi kulli cheyin alim yàlla moom mooy ki xam lépp kon aaya baa ngoog yàq doomo yàlla tere doomoo nit ba mu yegg ci yenn yi jël sa sant boo dee ñu jox ko ci sa alal yàlla fii la ko teree mu digal yonent bi na takk Zeynab bintu Jahsh nee na foofu lañ dindee turu Zeyd ibnu Muhammad ñu koy wooye Zeyd ibnul Xaarisata borom bi subhaanahu wa taala ci aaya bi ci la dindee dàkkantal googu ñu dindi zeyd ibnu muhammad di wax zeyd ibnul xaarisata kon ci at mi ci la yonent bi takk zeynab zeynab nag jële ci ndam jële ci fierté léeg-léeg sax mu toogoon ba ci yàgg di tiitaru ci kanamu waa kër yonent bi yeneen soxna yi naan leen bu kenn di tiitaru léeg-léeg ay sene man dong la yonent bi takk ma nekk soxna ma nekk ndaw zeynab ne dimbali leen ñu fii ku fii tiitaru maa fi war a tiitaru parce que man yàlla sama sama sama sëy ñu ngi ko takkee ca arsh amul kenn ku ko fekk lu dul yàlla ak subhaanahu wa taala ak malaaka yi jibril ak malaaka yi tedd yi kon fii maa fi war a tiitaru ndax yéen ñëpp seen sëy ci suuf lañ ko takkee ay nit a ko takk man nag sama sëy borom bi subhaanahu wa taala moo ko takk ca arsh ci aaya bi ñu waxoon sànq falamma qada zeydun minha wataran zawajnaakaha yàlla nee na maa la ko takkal kon yàlla moo nekk foofu goro yonent bi moo ko takkal soxna kon gis ngeen ci teraanga bu soxna si am mooy séyam kaw asamaan lañ ko takkee kon mbokk yi incha allah li moo doon darsu tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp ba dimanche bi di ñëwaat ñu eggali di des ci dars bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
waaleykum salaam wa rahmatullah.